ngeen jëf yéen ñuy suivre Feeling Dakar TV mbégte ak contentement ak bànneex la am tey jii ñu daje ak ki nga xam ni moo di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh boroom ñaan yi nga xam ni tey jii ku mu euh, diglanteer rek sa aajo faju ci kattanu yàlla moom mi nga xam itam yàgg naa def jaloore ci réewu Sénégal waaye itam ci sous-région bi moom mi nga xam ni itam yàgg naa def ay jaloore lu jëm ci li nga xam ni rek mooy dimbali askan bi fajal leen seeni soxla Serigne Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Feeling Dakar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. naa bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. naan laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim laa laa hawla wala quwata illa billahi al alil azim ginnaaw bu ñu sante yàlla ay wa julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Abdou Khadir bismillah incha allah si laaj yi. Mm-hmm. bi comme ni nga ko gisee fan yu néew yu weesu fii ak ñetti weer yu weesu rek le Sénégal amaat nguur gu yees nguur googu nag def nañ téeméeri fan ak lu tegu lëf ñu def ci ay jaloore def ci ay jéego yu am solo lu jëm ci wàllum dund bi lu jëm itam eh, ci fexe ba sénégalais yi seenu dund gën a yomb sëñ bi naka nga gisee son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am de Ousmane Sonko. waaw li lay ñaanal jàmm parce que président bu amee jàmm ñu ñëpp ñu am amul jàmm kenn du am ñu leen ñaanal nu ñu commencé liggéey macha allah dal na ñu tas rek yaakaaru askan wi mm-hmm. parce que ñoom gis ne lu leen fal. Mm-hmm. xam ne lu leen fal. dëw bi dañoo sonn dañoo xiif dañoo mar dañoo jaaxle amatuñ fuñ jëm ñu ne réew mi daal ndaw moo ko mën a yor. ngalla nag jël nañ ko jox nañ ko si loxo loxoy ndaw yi bu ñu wor askan wi bu ñu wor sénégalais yi. nañu góorgóorlu liggéey yi bañ a déglu nit ñi. aywa ñuy xool critique yi ñu bañ a déglu. mais nañuy xool nag critique yi. parce que nit ki booy xool critique si ngay gën a xamee looy fooy teg sa tànk. aywa ñu dimbale ñu ci nguura gi. ñu hmm. ñu sonn nañu lool ci wàllu nguura. Hmm. lekk ak naan. Hmm. réew bu amee xiif rek fitna yëpp day yëngu. waaye réew bu ñu di lekk ba suur di naan ba mandi. aywa léeg yëpp day xaar lijjanti lu gën a métti lijjanti mooy xiif. dëkk yi nga gis bu am yëpp xiif moo déclenché guerre bi. waaw dëkk bu amee xiif rek guerre nga jamono yooyu corona bi fii ba gars yi xale yi jóg-jóg dugg si osan yi toj ko. xiif moo warul ak tëju bi. aywa nañ yombal dund gi. ñu yombal ñu yombal ñu yombal luwaay luwaay bi ñu yombal ndox ñu yombal courant yombal bu ñu ko yombalee rek. Mhm. seen toogaay dina dal. Mhm. waaye tant que loolu amut mënuñu toog si dal. d' accord cheikh bi yow yaa ngi jëngu ci wàllum ñaan mhm. suñu borom may la ci xam-xam bu jéggi dayoo waaye am na ñoo xam ne a ji dañuy ñaan Bassirou Diomaye fay tàqalikoo maanaam xuloo ak ki nga xam ne Ousmane Sonko gannaaw ñu ngi koy def ci ay wax ndax jàpp nga ni tey jii dem de fexe ba dëdd leen loolu mën naa nekk. xam nga nguur boo gis rek day am opposition. Mhm. opposant lañ koy xawma. Mhm. ñëwee duñ dugg ñoom ñaar juboo am na ñoo xam ne juboo Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mhm. am na ñoo xam ne seen juboo moo leen enragé. am na ñoo xam ne seen ñàkk juboo ci la amee lu ñu am yëpp. seen juboo ci la ñuy ñàkkee lépp. déggoo mu ne seen ñàkk juboo mhm. ci lay amee lu ñuy am lépp mhm. am na ñoo xam seen juboo ci lay amee ñëpp mhm. kon nag ñaari yëf lay doon ñoom daal ñoo war a fagaru seen bopp ba kenn da war a dugg seen diggante waaw ñoom ñaar ñoo war a fagaru ñaaral seen bopp ba kenn xaj bañ a xaj allah d' accord bi itam ñu dugg ci li nga xam ni moo di clinique traditionnelle bi nga xam ne yaa ngi ko yor. Hmm. di ci dimbali askan bi. waaye cheikh bi tey li may li may fi may doore mooy dafa am loo xam ne dafa maa jaaxal dafa am hmm. ñetti njaq yoo xam ni. Hmm. yu mag la yoo xam ni da ko teg te eh, man daal jaaxal na xam nga njaq yi daa foo ko doon fekk. aywa jamono ji li may wax rek da nga gis ñii di da gis nga def benn mbir rek. aywa ñu ñu ñu copier ci si amuñ ci ndigal. aywa ñu yaakaar lu nekk fii moo ne moo tax mu indi ko fii sa salle bi tey ñu bañ ma bañoo woon ne lenn la fa nekk. waaw mhm. ñetti njaq yi nag lépp mu ngi ci mhm. ñetti njaq yi mhm. lépp ngi ci bii bu ndaw bi nag mooy tukkal réew mi jamono ñu toll nii bu ndaw bi bii mooy danawal gelawal danawal danawal waaw maanaam bii loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñaq bu ñu ko defaree nga sangu ko nga nga defee ko ñu la ko waxee yow yaa gis sa bopp wax lépp nag ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala lépp ci doole yàlla subhanahu wa taala ñun duñ ci lenn mhm. li may wax chaque jour mhm. ñun duñ ci lenn instant jamono jii dafa dem foo xam ne ne il faut nga boolee xam-xam bu weex ak bu ñuul mhm. xam-xam bu ñuul bi nag boo ko dégg am ñu bu dee dégg xam-xam bu ñuul rek ñu naan xam-xam bu ñuul baaxul déedéet xam-xam bu ñuul da am nu ñu koy defee dafa am yoon yoon boobu ñu koy defee nag ci yoon boobu lañ tegu ñun waaw loo xam ne dañ koo fekk si ñu waaju du ko def ay ñu nekk ci mhm. yaakaar naa bu nekkoon neneel la wala baaxu walla jubut mhm. suñu kilifa di dañu bàyyi nekk ci mhm. incha allah d' accord hmm. benn bi gannaaw danawal bi nga xam ni tey ji moom itam dafay dox ci li nga xam ni moo di faj euh, soxla hmm. jaam ñi waaye hmm. jooni jooni tey dafa am yeneen ñetti njaq yoo xam ni genn gi maa ngi ci gis jaasi beneen bi maa ngi ci gis kuur ah, gis naa itam waaw loolu naa bàyyi ba ci kanam waaye ñetti njaq yi laa bëgg nga ñëwal ma ci waaw njaq bii moom boo ñëwee si kër gi bi si bii am jaasi bi ngay jëkk a sangu mhm. am na lu ci nekk nag moo xam ne lu tëgg doon defee tëgg yi doon tëggee mbir mi lii lu yàgg la lii noonu la waaw lii noonu la mhm. lii sanga boo ñëwee si bii ngay njëkk a sangu mhm. ñëwee fii sangoo bii nga ñëw fii nga ñëw nga teg si bii maanaam lépp lu nekk ci nit ci luy lore luy lore laa wax lépp lu nekk si ni luy lore. Mhm. da koy dindi moom jeex tàkk. mu indi la lu lay njëriñ. Mhm. lépp luy lore ci nit ki. da lay lor. Mhm. ci ci wàllu dundin mayu la jàmm. lu mel ni ko rab rab moom. rab moom sama diggante rab jaasi bii ginnaaw yàlla ak yonent bi jaasi bii mooy dox sama diggante. yëkkatil jaasi ji ma bi ngay gis nii. ginnaaw yàlla ak yonent ak mbaaxam ak dooleem. rab yi sama diggante ak rab yi. jaasi bii laay doxal sama diggante ak rab yi. d'accord macha allahu ku rab jàpp daal ba nga xam ne rab jàpp na la jarul ngay ñëw. Mhm. ma delluwaat ginnaaw tuuti neen man nag nee naa la maa dugg ci benn mbir dam ko istixaar xool ko. waaw ci loolu laay ñëw ndax. waaw boo nekkee médecin wala nga nekk docteur. bala ngay bindal nit garab mhm. wala koy saytu. Mhm. da def li ñuy wax consultation. maanaam seet ko. ci yan xeetu seet nga man damay seet si ndox. damay seet damay istixaar ñetti seet yi laay nag su ma koy defal benn laa koy defal. mu nekk dama istixaar dama la istixaar yow Abdou Khadir yow dong laa istixaara si si si bu ma bu ma waree xëy suba d'accord bu nekkee seet nag fukki nit laay seetal par bis su ma xoolee nit fukki nit par bis du ma xoolaat leneen seet jooni jooni moom fukki nit laay seetal par bis bu nekkee istixaara benn nit laay seetal l'istixaara d'accord l'istixaar boobu da nga koy fanaanoo dama koy fanaanoo moom kese mais benn nit rek laa lay xoolal da nga gis ñu bëri ñoo xam dañuy jël ba ñeent ba ñeent juróom déedéet man loolu loolu wérut l'istixaara benn nit nga mën l'istixaara doo mënoon l'istixaara ñaar ñett ñeent déedéet ngir ay mbiram leer. musal laaj la. ki nga laaj nit ki turam. turu yaayam ak atam ki wax ma si dundam dara. lii moomay métti wala lii laay daja jànkuwanteel wala lii moomay li déedéet boo wax sa dund dara. Mm-hmm. man maa lay wax yow ni ngay dundee incha allah si kattanu yàlla ak baaxam. incha allah incha ñoo xam dañu ñëw ci nga xool leen. Mm. xam ni ñii kat mënoo leen a liggéeyal. yàggul sax yàggul rek démb am na xale bu ñu fi indi. Mhm. bi ma xoolee xale bi ma ne yow du ma sëriñ yabal naa ko ku koy faj. Mhm. léegi léegi lañ ma woo ñun alhamdulilah xale bi tane na nit day ñëw si ma xam ne kii du ma sëriñam ma yabal ko kuy sëriñam mu dem faj loolu da mooy dëggu. waaw loolu moom. Mhm. aywa macha allah daal lu loolu daal li ñu doon la daal lu ñuy damoo. loolu lu ñu doon la suñu waajur. d' accord incha allah d' accord cheikh bi dafa am ñoo xam ne jamono jii lu mu yor mu dem. maanaam li ñu wax naan seen loxo dafa bënn hmm. duñu yor koppar mu toog seen loxo dara lu ñu mën a yor mu yor loolu ndax am na saafara fii ñoo laa gën a soxla nag hmm. am na xale yu bëri fi ñëw démb ba ci démb xale bi dafa ñëw nee na ay millions la yoroon hmm. mais xamul fu mu jaar xam nga ñoom nit ki nga boo yoree sa jëmm ji na la lu ne ginnaaw say waajur na sa jëmm ji jaral lu ne nit ki amul lu du jëmmam nit amul lu sa wërsëg waaye yëf fi neex na rek nga topp nit ñi nga topp nga topp samba alaari nga topp ñi nga fàtt sa bopp boo xëyee rek mbugal dal sa kaw rek nga ne ah ma ne su ma xamoon de su ma xam su ma fekk bee weenu mbuus nit ki bu amee dara bu yàlla denkee dara del fàttaliku sa bopp yàlla moo la xool ba mu neex la mu jël wërsëg boobu teg ko ci loxo kon na yow del sa bopp defar sa bopp di defar bët làmmiñ musiba ak balaa ak lépp loo xam ne bu ñëwee ay waay du la yàgg alal da nga koy ñag alal li ngay ñegee sa bopp mu ngay ñegees alal. maanaam sëriñ bi bu ma la déggee bu baax yow da ngay yëngu ci kaaraange. kaaraange nit bu amul kaaraange jamono jii laaw jamono ji mu toll nii ku amul kaaraange yow boo génn sax sa kër. Mhm. loolu wax naa ko depuis deux mille dix neuf. Mhm. ku amul kaaraange ku yàlla ak yonent moo ko lépp mais il faut nga kaaraange kaaraange boo ko amul moom jotul sax ngay ngay dem fen mhm. incha allah d' accord bi itam dafa am jamono ji yaa ngi ma koy wax sànq mu jëm ci wàllum rab mm. waaye dafa am ñoo xam ni euh, rab faru rab ak coro rab def leen a sonal ñooñu itam euh, fan nga toll ci ñoom. xam nga nit ñi dañuy jaawale ñaar nit ki mun nga am cat moo nekk ci yow. Mhm. wala dañ laay liggéey nga ne da nga amee rab. Mhm. waaye loolu yëpp nag ci biir seet bi lay leer. ah kon da ngay da ngay def différence ñoom am ñoo xam ne yi leen téye mooy dañ leen liggéey. ba pare ñu rab moo lay jàpp. d'accord ñii cat moo lay jàpp ñu ne rab moo lay jàpp. te te loolu lépp da koy gis ba pare. loolu yëpp bu nekkee rab moo lay jàpp lu mu gàtt gàtt vingt et un jours ma fajaloo mhm. bu nekkee nag liggéey yeneen yeneen yëpp lépp dool su ma xoolee ba mu xam ne lii moo nekk ci yow mhm. insha allah mu nekkee mënu maay jëflante mu ne ah yow kat waaye lépp lu may def dama koy seet ba pare ba mu leer nañ ma dëcc du mhm. waaw am na benn Ousmane Ndiaye bu nekk Kirikoro moom dafay ñëw seet si la ngir bëgg nga seetal ko jooni jooni loolu itam jooni jooni bu ñëwee toog man nag seet jooni jooni boo ñëwee ma defal la jooni jooni bu nekkoon fii ba Hong Kong. Mhm. soo ma woowee ma xoolal la. nit ki bu toogee sa kanam sax mun nga wax nit gis naa ko waaye lii mooy problème waaye nit ki bu ngeen nekkee gisewu leen. Mhm. aywa nga xoolal ko nga wax ko jëmbam nga wax ko wax ko lu muy dund. Mhm. boobaa loolu foofu seet bi foofu lay gën a neex. kon maanaam su ma la déggee baax da ngay def seet à distance. bu baax a baax a baax boo ma bëggee sax nga ñëw toog ma toog. seet distance moom ma gën a nga toog ma toog. ndax ma. Mm. a maanaam di leen wax loo xam ne wócc na ak loolu man leen xëy na keneen la gis mais yow da nga ni ma tey jii nit ki nga xam ne nekk bi moom nga gën a mën a gën a mën a gis ku ma jàkkaarlool mhm. nit ki boo jàkkaarloo moom mun nga ko liir xam lii ak lii ak lii mais boo moom lu lay wax nag lii ak ak lii loolu suñu la ne mhm. loolu dañ koo tarbiya ba am ko mhm. waaw ñun dañuy am lu ñuy wax dafa am lu ñuy wax seet yi ñun ginnaaw yàlla ak yonent bi dafa lu ñuy wax dañoo am xuddaam boo xam ne ni xuddaam boo xam ne dañ koo jaamu faa jaam nag kon gars yi ni ñu ko waxee jaam dañ koo tarbiya tarbiya tarbiya ba am si tur mhm. ba am ko mhm. lépp lu ñu soxla ginnaaw yaa ante yi moo ñu koy wax ñu wax la ko yow mhm. te lu ñu la wax dara du ci deñ incha allah allah si kattan yàlla d' accord man nag li ma gën a neex ci yow mooy boo ko gars yi nga xam ni bu ñuy wax dañ naan lii dama koy def far day am mais yow da nga ciy jiital incha allahu taala subhanallah loolu moom waaw loolu moom waaw loolu moom waaw ku xamul yàlla rek wala mosoo yàlla wala amoo imaan billah yaa wax te doo wax incha allah. lu may wax ni yàlla bu ko neexoon wax ji may wax ni dama yàgg mu jël sama bakkan. waaw moo tax lépp lu jaam di wax na wax incha allah tamit nit ki ni ko ñaaral ba ngay bugg a dee. nit dina ñaalu ñaalu sëñ bi dem naa si téeméeri sëriñ ak fukk ak juróom su ma ñëwee mën na ko yow nan nga def say waajur. d'accord maanaam diggante doom ak waajur la hawla wala quwwata illa billah boo amul xol bu sedd sa waajur mhm. benn sëriñ mun laa ñaanal ba mu jàpp sa waajur na nekk lu ne nag mhm. du ma bëgg yàq waajur kenn sa waajur laa wax waajur waajur na nekk lu ne na nekk ñu wax lu ne mhm. waaye sa waajur la moo la ëmb juróom-ñeenti weer si ëmb nu méttee mu yor la màgg la ba nga màgg nit nit jóge ni yow si yaay lii la sa yaay lii la boobu rek yow loolu mu tax laa nga découragé sa yaay mm-hmm. laa hawla wala quwwata illa billah nit ki nañu rep sa waayu dof sax mm-hmm. xoolal rapport boobu mm-hmm. nu mu nu mu respecté waajuram uh, dof nday voilà xoolal kooku kooku war ñëpp war nañ jàng ci kooku nit ki sa waajur bu dofee bu nekkee leneen nag bu nekkee day taxawaalu bu nekkee sa waajur la bul xool loolu ci moom bul ko xoolee bët boobu xoolee ko sa bëtu waajur boo ko def rek faye ku képp ko toppatoo waajuram bu ñëwee sëriñ sëriñ bi ko ñaan day nangu ku toppatoo waajuram demal téeméeri sëriñ ak fukk ak juróom ñaan du nangu foofu maanaam nit mën naa ñëw man loola ñaan waaye dafa liggéeyul ndeyam wala mu liggéeyal baayam mais yow da ngay am différence xool nu mu ak ay waajuram am na lu may am na seet bu may seet su ma la ko seetalee am na nu muy mer dama laal sëriñ bi nan nga mel ak wala soxna si nan nga mel ak say waaju ah man de sama waaju sama waaju bu jigéen jubóoñu wala sama waaju bu góor ndax mu ngi def lii sama papa wala sama waaju bu góor mu ngi def lii sama yaay sa yoon néew ci mm-hmm. nit da sa waaju sa bu góor na jàpp sa waaju bu jigéen dóor ko ba toog si kawam sa yoon néew ci d'accord yow xamul lu sa problème mm-hmm. sa diggante ak ñoom xoolal nu mu baaxee mm-hmm. li nga dóoree muy dóor sa waaju bu jigéen mu noppi waxut yëkkut onkuwut barke boobu mooy sotteeg si yéen fu ngeen dem kenn du leen ree d'accord waaye ni am damay gis ñoo xam ne dañuy xeex ak seen i waajur bu góor ndax mu ngi def ni suñu yaay loolu soo leen naw ci ñoom ñaar la mhm. bu mu koy takk yow yaa ngi seen ràng yaa ngi seen ndigg mhm. fekke woo yàlla moo dogal nga jaar foofu mu nga ñëw si ñoom ñu jur la mhm. kon nag lépp lu ñu jote boo si mënul wax lu baax mbandu ci d'accord dañuy toppatoo waajur yi d'accord cheikh bi ki nga xam ne itam mm. am na boroom kër mm. sëy na ay at mm-hmm. mënul am doom ñooñu itam dañu wax naan dañoo taxaw ñi tudd leen jaasir ak yooyu. Mm. yow ndax yaa ngi ci liggéey. ku jaasir mooy ko xam du am doom. Ah. ku jaasir xam munoo munoo am doom. ci àdduna waaw. ku taxaw ku taxaw mooy nag ku amoon doom benn nga toog fukki at amootoo doom. loolu boo ñëwee incha allah bu nekkee sa jëkkër ndoxam bi mu ngi baax. Mm-hmm. amul benn problème. Mm-hmm. am na lu ñu boole ginaar ngeen woor ngeen lekk ko incha allahu ci kattanu yàlla ak mbaaxam da am njaboot. ak ah, maanaam li nga jox moom la toggee. ginaar lañ koy boole ginaar bu jigéen bu ñuul am na nag secret bu ñu def. Hmm. loolu boo ko defee incha allah da ngeen di wooree ñaan yëpp. Hmm. ginaar boobu noonu du ngeen lekkaat dara hmm. incha allah bu nekkee jigéen bu ngeen seeyee nga xool lu mel allah tabarakallah si kattan yàlla allah bi iznillahi allah d' accord bi itam foofu gannaaw bu jugee ci li nga xam ni moo di télé. Mmh. li ma jugee ci euh, taxaw. Mmh. damay dem ci télé ndax am ñu góor ñi bari ñoo xam ni wàcc nañu lal jamono jii seen kattan moo woyof toll ba jamono jii ku ñu seq rek da ngay bëgg a maanaam ñaan baat loolu itam wàllum ngóor a. xam nga ñu bëri ñu naan am nañ problème ngóor amuñu problème ngóor. déet. waaw loolu dañoo stressé wu. stress de baaxul moom. stress mooy dem ba yàq si ngóor bi. lu waral loolu nag jigéen ñi ñoo la stressé sa jabar. Hmm. buñ la laajee loo amul. waaw ah, loolu day sëriñ bi jigéen ñi dañuy dimbale borom kër yi si seen kër yi. Hmm. góor yi dara daw leen lu lu stress adduna moo leen jàpp. Hmm. stress dong moo leen jàpp leneen jàpp leen. am na yoo xam ne nag ndoxu système bi dina ko def. ci wàllu ngóora. ndoxam siti waaye lu lu si gën a am doole mooy stress bi. stress sànq mu ngi si góor sa góor sa dara du dox dara du dox yow da xool ay temps boo demee tey journée bi neex nga am tuuti benn un million wala deux millions. Hmm. aywa da ngay yàq bi yegg sa kër. Hmm. yàq bi yegg sa kër ba jox sa soxna dara boo tëddee guddi googu sa xel si lan lay ñëw te su lu ñëwee ci lu li ngay war a def li da ngay yëngal sa bopp yow di nga mun a def ak ba mu kontaan. Hmm. parce que yaay xalaat ne kat suba am naa dépas gannaaw suba am naa dépasse. Mhm. fii ma weer sama doom bu feebar mun naa ko faj. Mhm. loolu sax léppay ñëwaat machine yëppay doxaat. d'accord mais am xam ne ñoom. maanaam mën nañoo yegg ci seen soxna benn yoon. Mhm. waaye mën nañoo toogaat maanaam trois heures de temps quatre heures de temps a dara. naa garab yoo xam ne moom loolu da lay dimbali si loolu am naa garab yoo xam ne moom aywa boo ko naanee nga defe ko du la ko waxee moom doo doo tële ci àdduna. ci àdduna nga wax de ci àdduna doo tële loolu maa ko jëlee Saloum si mag ñi. Saalum waaw ñun waa Saalum lañ. day gis mag bu am téeméer at foofu ba tey mu ngi ah, loolu moom waaw secret boobu ñu yoroon nag yàlla dimbale na am nañ ci secret yooyu. Mhm. buñ la ko joxee dootoo tëlee ba ngay ba nit ki wuyu borom dootoo tëlee. incha allahu bismillahi taala. d' accord mhm. ki nga xam ne itam moom bunt bu mu fëgg bu mu euh, ëpp rek. Euh, du ubbeeku maanaam koo xam day wut day wut liggéey. Hmm. mais fu mu dem mën naa am dina am waaye du fa yàgg. kooku lan lekk liggéey mun am mu nekk rab. rab da koy def liggéey da koy def cat da koy def. d'accord waaw loolu nag balaa nit ki di xam ne yëpp dama koy seet. Hmm. soo ko seetee di nga xam ne nag kii lan moo ko dal nga dimbale ko incha allah bu dem ubbeeku ci kattan leen incha allah. d'accord hmm. kooku day aajo mu. jël ci njàq ci ci njàq yam yii nii mooy dem fu ne ci adduna bi Europe ak Asie ak yëpp lu nekk fii ci njàq yi mhm. mooy dem fu ne ci adduna bi man sama lépp dama ko pare mhm. su ma waxoon nit tey mu nekk fii ba Chine mhm. du am ñetti fa wala ñeenti fan mu jël liggéeyam kon da ngay colis say liggéey maanaam da nga koy GP dama koy GP mu dem lépp te lépp dama koo def comme comme pharmacie boo ñëwee indi garab pharmacie ñu bindal la garabu masala ñu gëlëm galaw sibiru mm. garab biir bi métti mm. garab xam nga bu ñu demee si rayon yi rek day am fu nekk foo tegu man sama lépp noonu la d'accord damaa waajal sama lépp mm. damaa waajal sama lépp kii rab moo ko jàpp nangam moo lii moo ko euh, seetaan moo ko jàpp liggéey moo ko jàpp lii moo ko jàpp lépp defar nañ ko ba pare mm-hmm. def ko ci barab bu ma waxee nit ki ba pare nee nga jox sa garab nit ki woo ma ne ah, sëñ bi ba ne garab yegsi na lii de musuma ko gëm musuma xam ne yëf yi dina gaawee nii man na damaa pare sama lépp teg. waaw man noonu laay liggéey sama lépp laa pare teg pharmacie laa yor. Mhm. garab bu booy métti garabam mu ngi à côté garabu prostate mu ngi à côté. garabu da ngay faj prostate. prostate dama koy faj ci vingt et un jours. vingt et un jours incha allah bisimilah. ñaar fukki fan ak benn wax sëñ benn laay faj prostate. sëñ bi lii néew ñu koy wax de. damay faj asma si trente minutes. asma. asma dama koy faj ci. 30 minutes man war naa laa seet dama koy faj ci 30 minutes. d'accord man sama waaju bu jigéen sama waaju bu jigéen asma moo ko yóbbu sama waaju bu góor asma moo ko yóbbu. Mhm. moo tax ma dem gëstu garabu asma. ba am ci lu wér. Mhm. am ci loo xam ne ni ku ma ko defal asma da ngay takkali moom incha allah. bi man man dinaa dinaa indi ay nit ñu seet si la de. incha allah asma sonal leen asma lépp loo gis garabam dafa koy teg bu jeexee mën la jeex na nga xaar bu beneen ñëwaat. damaa am benn xarit boo xam ni saf la tudd. waaw te am soxna mais bu buy seeq ak soxna si day mel ni asma bi koy daaneel. as waaw sonal trop ba du mën lépp xool lépp si xool la xool bu feebaree kay dara du dox. waaw lépp si xool la si xool bu feebaree doo mun dara. te kon itam nga ko dimbali ba mu tàggoog loolu. ba mu ba mu deñ ba mu jeex tàkk. tey laay waxee man waxee ma si ruqu waxee ma si ci ci kii tey laay waxee man la Serif Abdoul Si maa wax loolu. d' accord waaw gë yaakaar leer na de. leer na maanaam maanaam moom ku ñëwul di ko wax. déedéet déedéet déedéet maa ngi sama kër toog dew ma fenn. wallaay wallaay ndeysaan. Mm. mi ngi noonu Serigne Abdoul si Sy. Mm. da baax mi ngi noonu ku ko soxla itam numéro bi numéro yi nga xam ne ñoo nekk ci bas de l' bi moom nga koy jotee. Mm. waaye cheikh bi da nga tudd sànq GP. sama xel dem ci tukki. ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. wala ñi nekk bitim réew bëgg am ay kayit yoo xam ne daf leen dimbali ngir ñu mën a génn wala ñu ñëw ñooñu nooy def ak ñoom. mën na lii du tukki. lii du kër. lii di jabar. lii di oto. lii di fas. lépp loo ci def xool ko. waaw am na yoo xam ne buy tukkee du ñëwaat. waaw loolu daal bëri na moom. am na yoo xam ne buy tukkee. du ñëw xam nga lu indiwaat fii ñu def leen ci kees indiwaat la fekk ñu faatu. bisimilah jàmm. am na yoo xam ne bu ñu tukkee dañuy am na yoo xam ne indi dañuy ñëwaat duñu indi dara. am na bu bu ñu jógee fii bàyyi fii seen wërsëg dem di day fo dañuy commencé à zéro. Mhm. nit ki boo nekkee sa réew di tedd di am journée ba nekkee sax cinquante mille toogoo sa réew nga liggéey. Mhm. su la xoolee nga war a tukki man a ah tukki bi baax na boo demee dina baax ma bu nekkee du baax mal du baax. ay tax da seetal nit ka nit ki bugg nga wax ko lu ko neex. Mhm. man du def loolu. waaw ah, am na lu ma gis daa lay wax. Mhm. boo ko nangoo fa lillahi alhamdu boo ko nangut xalaas waaye man dama lay wax lu ma gis ci seet bi yaa seetal ma. Mhm. ñun tamit dañuy jaawale ñaar. mooy. nga ñëw nga ne Sida Sida Aziz xoolal ma sama yaram ma xoolal sa yaram yow laa xool yow Abdou laa xoolal yow laa seet. Mhm. ma seetal la ci biir seet bi wax na li ma la nga ah gisoo ci soxna nga ne ah gis naa ci wàllum soxna gel bi de. <laughs> te du dëkk. man loolu damay xooloo client yi bëri si loolu. Mhm. su ma leen seetlee damay gis ne man gis nañu wàllu soxna ma ne xooluma wàllum soxna. Mhm. yow laa xool yow Abdou Khadir yow laa xool boo ma nee xoolal sama diggante Anta wala xoolal sama diggante ak Sophie. Mhm. ma xool sa diggante ak Sophie lan la. waa diggante ma Kumba. waaw. waaye nag ma xool Abdou Khadir a pare nga ne ah gisoo wàllu soxna nga ah gis naa wàllu soxna lii lii après mu noonu fenn. dara jaru ko. qulil xaqa walaw kaana murran nañu wax dëgg te yàlla tax mm-hmm. te lépp a def def ko ci yéen innama al amalu bi niyaati moom nañ ci dugg mm-hmm. wa innama kulli wa innama li kulli nimri in ma nawa mm-hmm. buñ duggoo foofu rek lépp lu ñu dugg yàlla fekk ci si loolu maanaam yow li ngay def da nga ci boole ak ragal yàlla ragal yàlla ak yéene dama ci boole ragal yàlla nga may xalaat ñetti guddi bàmmeel kenn du la fekk du ndey du baay du xarit du doom kenn du la fekk sa jëf amal milliard amal mille milliards. <laughs> amal cent cinquante six milliards booy bu nit ki bu deewee buy faat bu yóbbaale lu mot quinze mille. ba yóbbaale lu mot ñetti junni loo ko yóbbaale. Mm-hmm. lépp fii nga koy bàyyi. léegi nag lan moo la fay sauver sa jëf. jëf ju baax. ak wax ak nit dëgg ba yow wor. Mm-hmm. bañ a fen di wax dëgg. Mm-hmm. alal adduna bi nit ki boo xoolee li nga dund. doo ko dundaat de. kon nag lu fi jar fen lu fi jar wax lu dëgg. ngir bëgg buzz wala bëgg adduna wala bëgg lenn. dara jaru ma ko man Abdoul Aziz xaw ma nag keneen. lépp lu ma wax ak yow sama diggante ak yàlla sama kanam yàlla kanam yàlla taxaw di ko wax. di ma la wax lu dëgg di ma la wax du ma wax lu amut lu wéru peng laa wax te lépp li ma wax man ko wax bi wajhi llaahi taala. d' accord d' accord cheikh bi ba tey dafa am benn waaye boo xam ni moom mi ngi États-Unis hmm. bëgg ay këyit mu tëkk huit yooyu itam am na ñoo ci defal bëri na am résultat xëy na sax dangay ngay bañ di wane. ay preuve ay preuve bëri na bëri na kooku itam lu muy def moom. waaw bi nga ko seetee rek wax lan moo téye kayit yi lii nga war a def kayit dafa am yoon. <laughs> kayit dafa am yoon dafa am toogaay kayit spécial nit ki boo ko buy am kayit dafa am toogaay boo koy toogal spécialement. <laughs> Mhm. pour kayitam kese. moom dong nga koy defal boo ko defee incha allah une semaine wala ñaari semaine. si kattan yàlla ak mbaa mu nekkee déposé na mu nekkee def ko am na nit tamit mos naa benn waaye Amérique. aywa mu ne ma am naa fi ñaar fukki at ma aw def naa lu ne naa sëriñ bu ne. ma ne yow dafa am lu laxas sa ginnaaw kayit yi daa am loo defoon lu yàgg loo xam ne gaa yi fàtt gaa yi fàttuñu ko de loo moo tax amoo kayit. mu ne ma sëriñ bi dégg naa dégg ma ne ko kayit bi doo gaaw am de. tant que din ñuul loolu noonu doo ko gaaw am mais ginnaaw yàlla ak mbaaxam ak ñaan ñaan mun lu ne ñu ñaanoo ko yàlla ñaanoo ko yàlla ba loolu bàyyi dindi loolu loolu nekkoon ci loolu ñu may koy bu ma buñ ko mayee kër yi mu ne ma sëriñ bi doo nit mën a ko bul ma woote mhm. déet waay wallahi alazim waaye loolu déedéet déedéet mu ne ko lépp dogal suñu borom mhm. si coobare suñu borom la ko jaar ndox sama loxo man du ma ci lenn mhm. dañ ko tuubal yàlla loolu nga wax duma nit ki dañ ko tuubal yàlla loolu kenn du ko wax boo ko waxatee bul bul ma woote ci loolu nag wax jooju nag njëriñoo ci bu baax. xam ne ne man duma ci lenn yàlla moo ko jaarale samay loxo rek moom. incha allah moo tax yàlla ni sant leen nit ñi doog may sant. boo sant nit doo. doo sant yàlla boo sant yàlla doo sant nit. <laughs> waaw il faut ñu sant il faut ñu sant néema bu ñu yàlla defal bi aywa ak xéwal bu ñu yàlla defal yi. Hmm. du si ñun nag nit ñi nag nit ki nag dafa gaaw a bew mm-hmm. ni dafa gaaw a bew ba ngay defal nit ki benn mbir rek yàlla tombel tombele ci rek nga ne kii de man la fekk yow du yow léegi nag boo kii dee man la yàlla rëccu loolu mu defoon si yow nag def ko ci keneen mm-hmm. waaw te muy dëgg incha allah d'accord cheikh bi nag ñu jëm ci loo xam ni daf maa ñor torop muy ban soxla dëgg dëgg dëgg mooy tax yow Serigne Abdoul Aziz si mm. mu tax nga dugg xalwa waaw soxla bu critique rek am na am na soxla yoo xam ne moom il faut nit ki dugg xalwa loolu nag moo ko jeexal nit bu duggee xalwa juróom-ñaari fan fan bu duggee xalwa aywa incha allahu yàlla walla ci mbir yoo xam ne macha allah il faut nga toog juróom-ñaari fan mun nga toog ñetti fan nit ki mun nga dugal benn guddi xalwa rek ajoom faju d'accord waaw mun nga ko at aajam aajam doo ko faju at mm. mu nga ko dugal six mois aajam faju mu nga ko dugal deux mois aajam faju mu nga ko dugal un mois am nga aajam faju mm-hmm. fukki fan ak juróom aajam faju fukki fan aajam faju juróomi fan aajam faju mm-hmm. ñetti fan aajam faju sanda mm-hmm. baasi nit ki rek ci dayoom waaw ci dayoom d'accord inshallah sëñ bi ñu ngi jëm ci itam ci ay élection mm. suñu borom may na la ci xam-xam ngay dimbali nit ñi ba suñu borom jox leen place ba ñuy wut waaw loolu moom def nañ ko defeti ko masha allah nguur bu passé bi def nañ ci lu doy waar yoo xam macha allah aywa doy na ba ci biir aywa am lu ñu gis ñu rocceeku. rocceeku nañ la jëppi ñaari at ci ginnaaw. def nañ ci nag ay jalo yu bëree bëree bëree bëree bëri. président Macky Sall muy jël nguur gi am na fu mu jaar. fu mu jaar fi man xam naa ko. 99 pour cent yéen ci. waaye nag bu ñu ñëwee ba ci biir nag am na loo xam ne boo ko gisee comprendre da ngay téye sa bopp. téye sa bopp téye li nga am. waaye nun nag yàlla moo ko dogalee noonu. téye sa bopp. téye li nga xam téye li nga am. loolu yàlla ko dogalee noonu yàlla bu ko neexoon nga topp kooku far force. dëgg la mais yàlla moo dogalee noonu parce que yàlla moom lu mu dogalee nit ki rek daf fekk looloo gën ci moom. d' accord loolu moom am na ci ay secret yu bëri macha allah. d' accord fal ginnaaw yàlla. Mhm. caggal àlla ina laa dawul. Mhm. caggal ginnaaw yàlla ak yonent bi. Mhm. fal ak folle moom am nañ ci lu wér. falu ak folli folli mm-hmm. am nañ ci lu wér dëj tamit ci place am nga xam ne kenn du la mën a déjjati mm-hmm. loolu moom macha allah ginnaaw si mbaaxu yàlla lañ amee loolu yëpp d' accord incha allah cheikh mi man de damaa jàpp ni wax naa lépp ndax jàpp nga ni mm-hmm. am na loo xam ne waroon nga ko wax te waxuma ko waaw wàllum kaaraange bi deru bukki bi deru bukki bii deru bukki la njëkkatil ma xool deru bukki bii moom si kaaraange rek lay dox deru bukki bi dama see génne benn bi rek ngeen gisaale ko lii li ma si yor macha allah. Mhm. te lii dama yónni nit ci àll bu ràbbal euh, euh, nu koy soxla. rëbb dem indil ma ko. aywa ma def si li ma ciy def de. Mhm. yii moom kaaraange boo xamante ni la macha allah. boo ko tekkee si ndig yu tekkee ko. maanaam da koy def ndombo. ndombo bu ndaw laaw la koy defal nu ma koy defalee lu ndaw la. Mhm. doo ko sangowaale. da nga koy sanguwaal da nga koy seeg si soxna da nga koy defal li mu takki sa ndiku hmm. masalan sama kër gi tey bu fi dara noonu xew hmm. nga takk ko da ngay dem mes da ngay mes dem sa yoon doo ko fekkee doo ko fekkee maanaam mooy wuute wuute waaw loolu mooy wuute si wolof Coran hmm, wuute waaw mooy maanaam bu jàmb mënoon a am bu jàmbe war na am ci kër gi yow doo ko fekkee doo ko fekkee lii boo ko tekkee am na yoo xam bëgguma wax si télé bi mais boo ko tekkee kaaraange boo xam ne police police gendarmerie. Mhm. duwaañ. Mhm. yoon lépp lu wàllu yoon takk ay galon. Mhm. amu ci wàll. d' accord loolu moom su ma koy wax sax day damay damay damay damay damay damay damay mel ni kuy bàkku te bàkku. waaye loolu yëpp mbaax suñu borom loolu yëpp sama waa ji mu góor laa ko doon. wàllu duwaañ wàllu yoon wàllum wàllum police. takk ko sa ndig nga bañ koo takki nga nga defee ko ni mu la ko waxee. waaye nag lu seer laa koy liggéey. moom ko waaw na leer yombut de. ndax dafa am résultat. macha allah incha allah boo ko takkee moom jeex na. Mhm. am na ñu ko joxoon ñu ko takk am nañ ay fukki fukki fan euh, fukki at ak juróom ak ñi ay ñaar fukki ñu ko takk seen liggéey. te am nañu ñu ngi bitim réew ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dugg si lu ne macha allah ñu ngi am ndam ñu ngi ñëw. d' accord uh-huh. cheikh bi dafa am loo doon waaj. Hmm. mu da ngaa jël sa benn jarbaat. jàngal ko lu ñuy wax nàmm te chinois yi di ko def. waaw loolu nga di ko commencé tijji benn cabinet bu yees. loolu dama ko euh, tijji. Hmm. mais dafa am benn kayit xam man sama lépp dama ko jaarale yoon. Hmm. aywa jàngee woon na ko ba mun ko mais am benn kayit bu bu ñu war a signé bu ministère war a signé. tant que signé ko du ma ko jox ndigal pour mu liggéey loolu. d' accord man sama lépp bëgguma jàddu yoon. bëgguma tooñ. waaye waa Gàmbi. waa Gambie. Mhm. nañ ma xaar. Gambie waaw. ñi ma bëri nañ maa ngi ñëw foofu allah. incha allah waa Mauritanie. Mhm. nañ ma xaar dinaa fa ñëw incha allah waa Côte d'Ivoire nañ waaye Gambie laay njëkk incha allah. incha allah Gambie moom ñu ngi ma xaar bu baax te incha allah fii ak fan yii dinaa defar génn beneen génn neneen bi sangam dinaa ñëw incha allah. d'accord ci kattan yàlla ak baaxam. cheikh bi ñu ngi lay jërëjëfal. yàlla yàlla nangu ñaan bi. amiin nangu ziyaara bi. amiin luñ fi wax. Mhm. aywa waa ko naru njëriñoo yàlla moo ko gis. ku ko ñëwee njëriñoo nag yàlla yàlla nga ko xool li ma la wax samay samay téléphone mhm. man maa ko yore sama bopp. Mhm. sama téléphone ku ma man ngay jot. Mhm. sama ñett téléphone laa yor ñetti numéro laa yor. jox naa leen ko yooyu laa yor sama aduna changé ma numéro changé ma ku ma man ngay jot doo jot keneen man ngay jot. amul keneen amut sim dafay jàpp man ngay jot man ngay waxal man maay defar sama bopp lépp incha allah. ci kattan incha allah jërëjëf Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh moom la ñu seet si woon tey jii ci Parcelles Assainies doon waxtaan ak moom ci réew mi fi mu toll tolluwaayam waaye itam doon waxtaan ak moom xam-xam cosaan bi nga xam ni ci way juróomu góor la ko doonee dégg ngeen ko wax na ngeen dégg jëf na ngeen gis Serigne Abdoul Aziz si Dabakh ku ko bëgg jot nag mën nga ko woo ci ñetti numéro yi nga xam ne ñu ngi défilé au bas de l'écran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 Dakar, notre plateforme d'information.